xam naa di ngeen ci gën a xam lu leen leer ñu ngi nii taxaw ak Serigne Assane Mbacke nga xam ne démb moom lañ téye woon fii ci gendarmerie ak euh, maître Babacar Ndiaye mi nga xam ne moo ñëwoon doon lijjanti yi ni mu demee ak Serigne Moustapha Diouf Lambaye xam naa dañuy njëkkee ci laaj maître mbir yi naka la demee woon itam nan lañ def ba yëf toll fii. waaw asalaamaaleykum mbokk yi ñuy suivre maa ngi leen di nuyu di leen sant yéen ñëpp comme ni ko waxee rek ñu ngi ni taxaw ak sëñ ak euh, sëñ Moustapha Diouf waaw comme ni ko nit ñi déggee dañu bi biig nañu nañ fi interpellé saa yi ko fi ba andi ko mooy gendarmerie Ngor de mhm. nag bi ñu ko interpellé waaw bon dañ ko laajoon affaire permis la woon rek ah mhm. dañ ko laajoon permis moom moment bu ñu koy laaj permis nag daf ko yorul woon mais finalement mujj na présenté permis tey nii si suba mhm. ba ñu ba ba alhamdulilah mujj nañ ko bàyyi loolu rek la woon may wax ak nit ñi ne leen amul benn jaaxle bi ngeen mën a def waaw Euh, alhamdulilah sëñ bi génn na mu ngi nii il est libre de tous ses mouvement mën na dem fu ko neex voilà affaire permis deful lenn lu luñ ko mën a toppee wala ñu ko mën a tëyee fii affaire permis lan te permis daf ko yorul woon mais tey si suba bi ma ñëwee gis ko waxtaan ak moom ak dem yéeg si kaw waxtaan ak commandant bi ba mu wanee permis alhamdulilah bàyyi nañ ko donc fii mu toll nii mën na ñibbi doxi ay activité ci si si jàmm hmm. voilà loolu daal laa amoon la may la may la may leeral nit ñi ñu woote jaaxle na xam naa lan lan ngay dalale xel. comme wax na rek parce que moom. Hmm. Ousmane Sonko moo yebal. Hmm. wax dëgg yàlla mu sonn ci loolu moom hmm. euh, waxtaan nañ tamit lu yàgg yàgg yàgg. ñu ngi koy sant bu baax ci ci maanaam taxaw.